alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhanahu wa taala seera namul benn bu dul war a jaamu bu moom noo ngi baalu aq ñëpp te di leen baalu te ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk ñi jéggal ñu ñëpp mbokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci lenn ci jukkay jigéen ju baax xam ngeen ne démb lan doon fàttaliku sayda almarhuma jaaratullahi maryama buso ci poroxaan di jigéen joo xam ne li ko may li mu am du ab juddu waaye yitte ju kawe la akuk baax ndax nit mën naa juddoo fu baax ba noppi du baax nit mën naa bokk fu baax ca du baax nit it mën naa bokk fu baax la koy may cër bu baax cafam bokk mooy yitte ju kawe soxna jaara ñag li ko may li mu am du judd bi waaye yitte ju kawe ak bëgg lu baax moo ko may ma waral daneen jël exemplaire boo xam ne ci suñ jigéeni Sénégal yi ñu mel ne ko moom ñu mel ne ko Soxna Awa ñu mel ne Sayyidatu Aminata Lo al mardawiya al njomrawiya al lugawiya ñu mel ne ko maam fa dubale maam fa mi nga xam ne mooy euh, waajuru Alaaji Malik suma ma juumut ak ñeneen ñu mel ne ñoom ci suñ réew mi ñu nekk nga xam ne mag ñu sell ñu baax ñi ñoom la yàlla dogal ñu jaar ci ñoom walla ku mel ne ka soxna Ndaak Mbeng waaye juru borom penc mi ñu nekk ñu ay référence yoo xam ne jigéen ñëpp war na ñoo mën a roy ci ñoom bokki na bu nee jigéen gu baax mooy ki nga xam ne day dimbale borom këram ci mbiri addunaam ak àllaaxira ñooñ ma fi tudd ñëpp kenn ku ci nekk kala yàlla boole loon da nga jàppale woon ci mbiri àddunaam ak allaaxira kon jigéen ju baax soxna su baax day nekk ci wetu borom këram di ko dimbale ci mbiri àddunaam ak ci mbiru allaaxiraam waaye soxna su baax dëgg dëgg dëgg suñ ko waxee mooy ki nga xam ne su dikkee ci kër borom këram ni yaay di taxawe ci doom noonu lay taxawe ci borom këram ni rakk ju jigéen di taxawe ci mag ju góor noonu lay taxawe ci borom këram kon léeg nga dégg diw ne sama soxna mi soxna si mat na ma ndey mat na ma baay taxawaay soxna saa tax mu ne kii kat ku ma mat ndey la ku mat baay la soxna su baax taxawaay yooyu la war a am ci borom këram waaye tamit taxawaay bokk na ci taxawaay yi mu war a am ci borom këram mooy njaboot gi ko yàlla booleeg borom kër bi mu fas yéene leen yar mu fas yéene leen yar loolu yi nag bokk yi lu mat bàyyi xel la moo waral yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi ngi soññee ci kuy denc soxna na nga tànn soxna sa ngay denc waaye tamit ku bëggit borom kër yi na nga tànn borom kër bala war a yor ida ataakum man na diinahu wa xuluqu fa zawijuhu sallallahu alayhi wa sallam ne nit bu dikkee ci yéen diineem ak jukkaam doy leen bu leen ñaanee soxna may leen ko soxna léegi-léegi nit dugg ci kër ñu dàq ko mu jàpp ne dañ koo bañ waaye bu demee ne seetaat melokaanam ba xam lu tax ñu ne ko fii doo fi am soxna kon bokk na ci li ñuy tànn nit may ko jabar mooy diine ak jukko waaye bokk na ci tamit soxna liñ koy takke mooy diine ak jukko mu mel ne nag jamono ji ñu nekk contraire mu am gaa yi baree bari li ñuy jëlee soxna mooy alal wala taar wala yu mel noonu ca nit ki moom soo bëggee mu sàmmal la sa bopp sàmmal la sa njaboot sàmmal la sa alal sooy denc soxna na nga takk koo xam ne borom diine la loolu am na ci solo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam santuñu ne na nañuy seet bu ñuy denc soxna soxna yoo xam ne borom yi diine la doon mu mbokk ci ponk bi ci ëpp solo ci tànnum jabar mooy diine képp ku yàlla war wërsëgal nga am soxna soo xam ne su gëm yàlla la jaamu ko te yàlla la ba nopp di topp yàlla guddeeg bëccëg dégg nga yow li ñuy wax matériel àdduna am nga ko mataa dunya wal axira am nga ko waaye ku yàlla war wërsëgal nag safaanub soxna su mel noonu loo baax baax loo mën a amit amoom matériel àdduna ak alaxira kon ndaka jigéen bokk yi tànn ko lu am solo la tànn ko lu am solo la ndax dana tax yow mi mu nekkal sa xol di féex dana tax yow mi mu nekkalit ngay gën a góorgóorlu ci jaamu borom bi subhanahu wa taala ndax la sëñ Basiir waxoon ca meññu baaxal qadim ba muy tagg soxna jaara buso sunniya diiniya aabida mutia baat yooyu rek la jëfandikoo ci moom ku amoon diine la ab sunni la woon ku toppoon borom këram la ku nangam ak la kon tagge wuñ ko woon ci li ma njëkkoon a wax ndax mutiatun li rabbiha wa cheyqu sayidiha ardatu afaaluha lillahi idmaada soxna jaara ku toppoon borom këram la waaye ku toppoon borom bi subhanahu wa taala waaye nag ku daan déglu maam Mor Anta Sali la mi nga xam ne moo ko indi woon ci biir kër gi musu koo sàllalu musu koo ñàkk a kersa musu koo tànqamlu ca guddi ak bëccëg ma nga ca ndigalal Maam Mor Anta Sali jigéen noonu lay mel kon nan bàyyi xel bu nuy denc soxna ñu jéem a xool soxna yi ñuy denc ba xam yan façon soxna lañuy doon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam adduna lépp mataa la waaye bi ci gën nag ci mataa yooyu mooy almara as-saaliha jigéen du baax nag dafa bari ay melo yoo xam ne daf ko war a melowoo bi ci njëkk mooy wax naa la ne dafa war a doon borom diine di borom jukko ju rafet waaye du koo xam ne day topp borom këram ci lépp loo xam ne ndigalal borom bi subhaanahu wa taala la waaye nag bu mu ko topp ci loo xam ne lu naqar yàlla la borom kër bi lu mu la takk indi la ci kër gi yilif la bu la santee lu neexul yàlla taxawal fële lànk bu fekkee ne dafa dem ca marché ba jënd produit xeesal bi nuy xeesale ne la jaxaseel diw nga xam ne lii lislaam da ko bañ nee ko du ko def am nga ca droit l'islam moo la ko teg bu demee jënd mees indil na la lettre bay ba mu wàcc say tànk nee ko diine dama koo tere bu la jëndalee tubay ju xat ju yaraax ak godi boo xam ne boo ko solee say awra di feeñ nee ko lii di ma ko du ko sol diine dama ko tere góor ñu bari ñooy jëndi pantalon yi di jënd xeesal bi di jëndi mees mi di jox soxna yi ca nu waxee soxna si boo leen waxee ñu ne sama borom kër lii moo leen lii moo ko neex la neex sa borom kër baaxul li la neex baaxul loolu nag bay boo ñu bàyyi ci xel am na ci góor ñoo xam ne ñoo koy def ñooy jóge voyage indi ay tubay yu dang yu xat ak bëdi yu bon léegi-léegi ñu daan ñu naan ñu soxna si solal lii ñu ànd doxantu jàpp na ne loolu succès la waaye musiba la ca nag loolu jigéen gu baax ca boppam ju lislaame am na loo xam ne bu ko ci borom kër bi bëggee dugal du waru ko ci topp kon li ñu toppe góor li ñu toppe borom kër mooy ndigalal yàlla yi laa taata li maxluqin fii masatil qaaliya beneen bi ci des mooy na fa séenee sàkku ngërëmal borom këram ci lu neex yàlla xam ngeen ne dénkaana bi sëñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Diop nee na ko yow soxna Penda Diop na nga xam ne jigéen jihaatam ci lislaam mooy topp borom këram kon dekate jihaat ci lislaam ci jigéen mooy topp borom këram na kon nag saa yu le sa borom këram gërëme yàlla dana la gërëm saa yu la sànjee nag suñ borom dana la sànj kon nag jigéen gu nekk di sëy nanga fexe ba am sam ngërëmu ngërëmal borom kër loolu nag bokk na ci li koy maye mooy di dégg ndigal di bàyyi tere beneen bi ci des ci melokaan yi jigéen war a meloo mooy na ak mbëggeel am ci sa borom kër moo waral boo gisee bu nuy takk fii ab sëy may laaj ba xam ñaar ñi ni mayee bëggante nañu wala bëggante wun ndax léegi-léegi ñu maye ko ci kilifteef war nañ koo boole rek te bëgg amu fa sëy ba day naqari ak bëgg mooy jiitu cib sëy wa jaalna baynakum mawadda wa rahma bari na jigéen yi sonn ci biir kër ñàkk bëgg ñàkk mbëgg ko waram ndax góor boo ko mayee kum bëggu da koy xor ñooñalal dana ko teg matri wu nekk kon fexeel ba soxna si boo koy may borom kër ñoom ñaar nan bëggante bëggante goo xam ne day day day jàll doyo su ko defee dana ko mën a téye mën koo yërëm kon bokk na ci jukko yooyu ñu bàyyi ci xel waaye bokk na ci bokk yi mooy jigéen ci boppam ngërëmal a comme yooyu bu àllëgee moo koy tàbbal àjjana sallallahu alayhi wa sallam na jigéen bu jullee julli juróom woor weeru koor sangew topp borom këram soo àllëgee des koy ubbil bunt yépp na ko bunt bu la neex tàbbal ci bunti àjjana yi loolu nag la jigéen doo ko am waaye góor amu ko kon lu leen yàlla jagleel la kon ku nekk ci kër gu sëy di sëy rikk waay na nga góorgóorlu sa diggante ak boroom këram bokk na ci jukkay jigéen gu baax mooy muy sàmmal borom këram alalam di ko sàmmal këram ca bum génn ci du ndigalam magasin bi jënd na dund bi ceeb baa ngi feeg lépp ak diw gi bul bëgg sa say bokk ba tax ku dikk nga nattal ko jox sàmmale sa boroom kër alalam ndax léegi-léeg nga gis borom kër yu nay am na ku mas a ñëw ci Yonent bi sansam ne ko man de sama bëgg na borom kër dafa nay ndax ca lim may jox dépense du doy ndax bu ma lambee poosam fekk ca alal jël loolu def dolli ko ci biir dépense bi ndax loola sàcc wala du sàcc Yonent bi sansam ne ko du sàcc ca léegi-léeg nga gis borom kër yoo xam ne la ñuy joxe du doy soxna si lamb bu ba fekk fa dara dem yokk ko ca dépense ba bu boobaa loolee mu jël du sàcc kon nag na ko sàmmal alalam noo ko sàmmal alalam bu baax a baax a baax ba dara bañ ca yàq waaye mu sàmmal ko njabootam sàmmal ko këram ca bu mu génn kër gi mukk lu dul ci ndigal la borom këram bokk yi soxnaa ngi nii soo xam ne borom këram da doon dem xare na ko bul génn kër gi li fekk ñëw ma mu génn borom kër bi génn dem ab diir ñu dikk na ko sa baay dafa tawat mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko man kat sama baay dafa tawat te dama ko bëggoon a seeti yonent bi ne ko sa borom kër waxoon mu ne ko dana ma woon bul génn kër gi ci ñëw ma yonent bi ne demal toog ab diir mu ñëw ñu ne ko sa baay faatu na mu dikkaat ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko baay sama baay ba tawatoon kat nee na ma dafa faatu damaa bëggoon a dem ci dëj ba yonent bi ne ko loolu sa borom kër waxoon mu ne ko dana ma bul génn kër gi ci ñëw mu ne ko demal nga toog bul dem bokk yi xoola loolu ay bu doon jamono tey jii bàyyi duma ko jëndab sëy baye boo nga wàcc ma ba boo ñu ngi teqalikoo damay dem dana ko seeti sama baay nangam ak nangam buñ la xasee maye nga sëyi sa baay sa borom kër moo la ko war a gënal yonent bi ne nan ko waajal ñu waajal ko ba di ko jullee fi fi kabbara yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu di ko jullee fale naa jibril ñëw na ko yaa rasulullah kii ñuy waaja a jullee defalul yàlla ci kaw suuf lu ko mën a yàlla jégale waaye sa borom nee na jëggal na ko ci barkab doomam jee topp ndigal la borom këram ndax bu doomam jooje dëgëroon bopp dem dem ca dëj ba wala mu seeti baayam baayam dana am njéggal googu kon jigéen ñi nan yewu te xam ne boroom kër du moroom léegi nag dañ koo def moroom danoo def boroom kër yi moroom di leen wax lu nekk di leen fontoo di leen def nangam ak nangam léegi-léegi li may dégg sax baat bu doy waar la boo nee reyu leen soxna jaaro ñu ne Maam Mor Anta Maam Mor Anta Sali yi bëri nan soxna jaare ci boppam ñoo bëriwul ndax jigéen bu fekkee ne moom dafay dëgërante boppam ak borom këram boo nekkoo toogal du toog boo ne koo noppil du noppil dégg nga boo waxee mu ëpp la làmmiñ ca dañ lay tooñ ba ñëpp njëkk laa mer tu duural la ci dëkk bépp waxal la loo defut su boobaa nag kan mooy nekkati kon am soxna jaara ñu baax ñi daan jur ñu baax ñu ngi koy jur ba léegi ni waaye jamono ji ñu toll kuy takk jabar na nga ko seet bëgg soxna bu mu tax nga dugg ci loo mënut bëgg soxnaal bu mu takk nga xam ne soxna soo xam ne fa tabaarakallaa boo dikkee mu tas sa kër bëri na kër yu tas jigéen ñee ko tas bëri na kër yu tas yu bari yoo xam ne jigéen ñee ko tas kon loolu bokk na ci melokaan yoo xam ne jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel waaye bokk na ci mooy euh, jigéen ju baax day jéem a yitte woo diineem xam ko day jéem a yitte woo diineem xam ko moo waral bu ngeen demee ci téereb si Omar boobu ca Miftaaxul Xuyuub dafa wax ne war na ci borom kër bu nekk mu jàngal bu soxnaam su munta jàngal soxnaam na wut benn ustaasatu bu jigéen mu ko di ko jàngal ñàkk dof ku mett gi am ci suñ jigéen yi tey yi ak tajax tajaxee rëmbax rëmbax ñàkk xam seen diine rek lan ñàkk xam seen diine rek lan waaye jigéen boo ko jàngalee mu xam diineem xam la mu war a mel amaana suñu borom dimbale ko mën a jaar fam jaar kon nan leen jàngal di jigéen ñi nan mokkal alquran ji jàng seen sharia ba bu ëllëgee bu demee seen borom kër mën a dund diine bokk na ci jukko yi jigéen war lamboo làmbo yi mooy jigéen day nangoo muñ jigéen day nangoo muñ jigéen day nangoo muñ na nangoo muñ lépp tegandaay boo xam ne mi ngi ci biir këram ak lu métti métti rek na ko muñ xam ne adduna moo baaxee noonu waaye lu la wokk walla lu la xuri wala lu la naqari wala lu mën a doon rek nga fas yéene koo reetal ba ñëpp di ko yëg looloo jigéen gu baax du ko def kon bokk na ci jukko yi jigéen war a mel mooy jigéen dafa war a muñ waaye bokk na ci jukko yooyu bokk yi jigéen bokk na ci jukko yi mu war a jukko wa mooy di wax dëgg lu mën a xew xew xew borom këram dikkee na ko na ko wax lay lay dëgg waaye ñu baree baree bari aw njomba la ñuy def bu dikkee laaj leen du nangoo wax ca àdduna dafa yàqu problème bi am bi yàq àdduna bokk na ci téléphone yi whatsapp yi tiktok yi Instagram yi mel noonu jigéen ñaa ngi tukkal adduna tey am na ci ñoo xam ne ay boromi kër ay ay boromi jëkkër la ñu doon mbonte gu nekk ñu di ko def wax ju ñaaw ju ne ñu di ko wax te bàyyi seeni borom kër ci àdduna bi ñu toll fi mu toll nii ma waral wax naa ko de ay waaye koy takk na nga seet ka ngay takk de daa jong nga maag daa am alal bu ci dugalee bés ak ñëw da nga wi tax sa baaraam diine la ñuy takk jigéen mais de su ko takk ci yooyu moo tax yonent bi sallallahu wax ne ñeent yi ci lañuy takk jigéen bu njëkk des na takk jigéen ngir ab taar des na takk jigéen ngir aw askan wu mbokk bu baax des na takk jigéen ngir alal waaye des na takk jigéen ngir diine na la nag booy tànn tànnal borom diine yépp baax na waaye tànnal borom diine kon kuy takk soxna bokk yi na nga tànn diine te loolu bokk na ci li nga xam ne lu am solo la hadis bi yonent bi sansa wax na nag ab jullit gannaaw ragal yàlla jëru ñëwul ci àdduna lu gën soxna su baax soo xam ne saa yu ko digalee mu def ndigal la saa yoo ko xoolee sa xool sedd soxna boo ko xoolee sa xool dafa war a sedd waaye soxna soo xam ne soo ko xoolee sa xool di tàng lu ngeen jur sax mën naa mën naa bañ a bañ a barkeel lu ngeen jur rek mën naa bañ a barkeel jigéen boo ko boo ko takka indi ko ci kër gi war nga foog fu ngeen def seen bët jàkkaarloo rek sa xol sedd ci jukko ci melokaan ci diine ci mën a toppatoo ci mën a sàmm ci man a def yépp waaye jigéen koo xam ne foo ko xoolee du moyu bu ngeen tëddee sax doo ko bëgg a gis xol bi féeféeri ngay jur doom yu bon rek lay jur kon nag na ni seet soxna ñuy takk ñun nag jamono ñuy tollu takkatuñ jigéen ngir diine ke gën a dàq muuru gën a jàng alquran gën a julli gën a woor dañ ko fi romb seet yi ka nga xam ne ay pesero lay war ak i 4-4 yor alal ju di beex ñu ne kee moo ko yor wallahi kee yoru ko les maddiyaatu dunya la jëlal kële xam ne kee moo ko yor su borom lépp jigéen gépp giññam gum xar faw mu def ci lu mu dundee wa ma min dabbatin fil ardi illa ala risquha nit ñi nag léegi alal moo leen moo jaay seen ngor ñu bari jaay nañ seen ngor jaay seen diine jaay seen dignité ngir alal yi àdduna rek ngir alal yi àdduna kon kuy takk soxna bokk yi na nga takk jigéen goo xam ne dafa am diine ca bañ a takk jigéen ñi xew dangal yeeg wengal yeeg sol yu ñaaw yeeg dégg nga terme yi ñuy wax ak ak yu xew ci jamono ji ñu gis ak dégg nga benn nag danaa ko dénkaane moom gis ngeen internet bi whatsapp beeg facebook boog yow bu ci kenn takk jabar dañuy puudaru meesu na mel ñu mel sax mel nañu boo demee ba jàkkaarloo moom da ngay wàccu bu ci kenn takk soxna envoyé ma photo envoyé ma nangam mu yooyu ne la photo nga naa bisimilah waa jaa ngi daal tàmbali ngoro billaay boo ko jàkkaarloo da nga naan accam kii ndekete du moom ki ci takk jabar yaa ngi ci booy dem da ngay gis dangay dem xool nangam nangam waaye li xew jamono am waaye ma sa foto ba xam noo mel nangam ak nangam te fekk dafa léttu puudaru maquillage tegi xef tegu garafaas dégg nga puus ay we di neng neng ak jeggi-jeggi boo ko takkee musuba ngay am dangay dem ba gis jàkkaaroo moom soo di tàgg loolu rek nan ci bàyyi nan ci bàyyi xel fi ni mujjantale bokk yi mooy yonent sam sansam nee na woon bokk na ci li tax doomu aadama ci kaw suuf ñett mooy jigéen gu baax waruwaay bu baax dëkkuwaay bu baax ku ko yàlla war sëggale am nga tax ak àdduna mooy jigéen gu baax dëkkuwaay bu baax waruwaay bu baax waaye ku yàlla war sëggale lii am nga ñaawteefu àllaaxira ñaawteefu fu àdduna mooy ban jigéen gu bon waruwaay bu bon dëkkuwaay bu bon loolu kon nan ci bàyyi xel mbokk yi jamono dafa yàq jamono dafa tas jamono dafa am melo kon soxna yii nga xam ne ñoo fi nekk nan delluwaat roy soxna jaara roy delluwaat soxna ndaak mbeng roy delluwaat saydatu aïcha saydatu khadija saydatu mariama rabiatul adawi dégg nga ak ñeneen ñu mel na ñoom soxna awa buso saydatu aminata lo ñun wa ñooñu dañ war roy waaye bari na ci ñoo xam ne dañuy mbubboo daaira maam jaara yi soxna jaara ju taa dëkk bu bisu poroxaan la ñuy solub xaftaan la ñuy wala la ñuy solub garaam bu wala nangam nangam buñ jugee ca soxna jaara ja ña nga wàcc seen bakkan lu leen neex def di sol lu bon di sol lu ñaaw jàpp na ña nga ña nga ci ngóor a ñooñee nan xam ne la ñuy def diine santaane wu ko ca dañu ngis tal laa ilaha haulayi wala ilaha haulayi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana arzuq qulubana baratan wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna al-ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna al-ijtinaba ma dhalika ala bil aziz aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimina amin